alors c'est politique di dalal tey Mamadou Mbodj Diouf euh, di membre du euh, bureau politique du parti socialiste jiite it PAMOD waaye di candidat ci élection locale yi jëm euh, commune bu Jaxaay bi nga xamante ni honorable député Pape Biram Touré moo koy doxal jamono ji kilifa ñu ngi lay di am mbégte bu baax euh, ci invitation bi ñu ma jagleel tey. am na solo ñu ngi jëm fii ak ay fan ci at mu bees deux mille ak ñu chargé woon trop ay dugg génn ci mbir yu bëri euh, dèjà ñu ngi wax euh, ci local yi ñu jëm te mu jigéen ne lu bëri soppeeku ci configuration parti socialiste xëy na dugal caution xëy na yow romb nañu pàcc boobu yooyu ci yow enjeu yi dëggantaan soo koy natt ci local yi jëm. lan la euh, li ma mën a wax foofu mooy euh, il faut que ñu comprendre que élection locale yi élection la comme yeneen élection yi bien sûr mais nañu xam ne aussi euh, dañu am ay perspectives yoo xamante ne li nga xamante ne moom la ñu war a li nar a xew ci élection locale yi dina ci am impact. muy doon aussi bien législative yi di doon présidentielle yi ce qui fait que forcément mënuñu bañ a ne élection locale yi di ñëw euh, amuñu enjeu ou en tout cas enjeu particulier soo ko comparé ak euh, enjeu yi passé comme tudd nga parti socialiste man euh, li ma mën a wax ci wàllum parti bi effectivement le parti socialiste dafa jël option déposer une caution pour mën a permettre suñu candidats yi wala en tout cas suñu responsable yi nga xamante ne dañu nekk ci gox goxaan yi euh, jéem waxtaan ak euh, waa APR ak alliés yi ci biir benn Bokk Yaakaar te jotuñu mën a déggoo ndax des des réalité réalités locales ñooñu parti bi dafa dogu permettre leen. ñu mën a doon candidat ci bannière parti socialiste dem ci couleur parti socialiste loolu nag may fàttali na rek euh, du lu bees. Mm. parce que 2014 noonu la woon fekkoon na benn mbokk yaakaar amoon na fi. Euh, c'était euh, boobu euh, Ousmane Tanor Dieng moo nekkoon secrétaire général parti socialiste ba ñu demee aussi di négocier euh, bi ñu demee ba yenn gox goxaan yi jotuñu foon déggoo mënuñu woon ànd ak euh, ah benn bokk yaakaar ci lañ permettre camarades yu bëri ñu mën a dem ci bannière parti socialiste te ñu bëri aussi noonu lañu amee seen i miir donc pour wax ne rek euh, loolu du du lu bees te yàqul dara. ci suñu àndandoo benn mais ci diggante bi euh, secrétaire général dafa waxoon ni amul caution dañuy dem ci bannière bi jékki-jékki ñu ne am na caution. bon déclaration yu bëri nañ déclaration yu bëri euh, muy secrétaire général muy ñeneen. mais li ñu war a xam mooy parti socialiste aussi xam ngeen ni muy fonctionner parti organisé wu la donc du euh, kenn nit rek mooy wax mooy tëb dogal ni partie bi war a doxee loo gis rek dañ koy tënk mais ci biir ay instance comme instance yi ñoom ñoo décidé ne parti bi dafa war a déposer caution à la kuliyaal yi noonu rek la mënoon demee donc du suma wax sama kàddu bopp euh, maa ko mën a moo ko mën a dindi du kàddu keneen moo ko mën a dindi te démocratie aussi suñu démocratie démocratie interne li mu joxe mooy dès lors que instance yi réunir nañ donte man décision bi ñu jël ànduma ci su fekkee ne majorité bi tënk na ko rek euh, décision bi dafa may tënkaale donc damay obligé man ma ànd ci. d'accord mais mais mais parti bu toll noonu fi ci toll nii booy xool ci actualité daanaka doo dégg benn ci seen responsable bu def l'actualité de l'autre côté yaa gis même fekkee opposition bi waaye Khalifa a bàyyeekoon ci seen flanc Barthélémy Dias dañ koy dégg le plus souvent Sonko ainsi de suite mais pour secrétaire général daanaka peu dañ koy dégg même ci échéance yi ci perspective yi Khalifa nee na il sera candidat en 2024 affirmé na ko mais seen biir ba léegi daal dafa mel ni da ngeen di jàppandu rek di dem amul gañe leen benn perspective wala yéen daal yeneen ci ginnaaw waa APR yi ginnaaw président Macky Sall bu ne waaw ngeen ni waaw bu ne déet ngeen di déet local yi gën a naka noonu yéen daal yéen a ngi noonu en fait il faut nga xam ne euh, parti socialiste moo ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar euh, de ça depuis 2012 donc loolu changé wul terewul nag parti socialiste aussi parti la partie bu autonome foog naa ne li ñu def euh, déjà ci local yi ba ñu déposer suñu caution loolu wane na ko te mën naa ne fii parti yi nekk biir benn bokk yaakaar rek mennum parti socialiste moo ci déposé caution mennum parti socialiste moo ci am ay responsable mën a dem ci ay couleur donc déjà loolu euh, expression wu souveraineté bu ñu am bu ñu moomoon suñu bopp la donc du benn moo ñu koy moo ñu koy digal du keneen moo ñu koy digal ñun ñooy seet li nga xamante ne moo ñu arrangé à un moment donné base bi déterminé wu ci tënk dara ñun ñu wéy ci loolu Euh, ma bëgg a wax ne rek euh, <clears throat> c'est vrai que fi ñuy dégg yeneen parti ak fa ñu doon xaar PS du foofu la ñu fekk parti bi hmm. kooku euh, je crois que man yàgg naa ko wax yàgg naa ko joytu xëy na direction parti bi parce que tey moom du ma tudd secrétaire général bu parti bi damay préférer yem ci direction parti bi hmm. xëy na c'est la direction ñëpp tout le monde est responsable man sam bopp comme direction parti bi laa bokk am naa ci paaru responsabilité mais foog naa ne euh, li ma waxoon rek mooy parti bi day dox mu mel ni genre euh, gaal goo xamante ne xëy na joow bi moom moo dam wala amatul joow su boobaa day tëñëx tëñëxi rek quelque part euh, loolu camarades yu bëri métti du nañ ko effectivement déggatuñu en tout cas déggatuñu lu bari. te déggatuñu aussi ci li nga xamante ne mooy mébétu askan yi wala ci question euh, yi gën a am solo loolu aussi day wane na rek quelque part euh, parti socialiste actuellement am na euh, disons jaar-jaar yoo xamante ne ci la toll moo tax lu bëri mënatu ko motal te lu bëri mënatu ko. li ma mën a wax loolu yëpp ngi ci biir loolu yëpp ngi ci biir. Euh, nañu jàpp ne euh, dañu amoon un secrétaire général très dynamique bu fi nekkoon avec un leadership très fort très puissant xëy xëy yàlla def li ko soob ci moom muy suñu président Ousmane Tanor Dieng di ko ñaanal encore une fois yàlla xare ko àjjana euh, donc kooku pour assurer son héritage wala pour assurer sa succession mënta yomb comme que nag fal nañ benn secrétaire général par intérim moo ngi def li mën moo ngi góor góorlu mais li ñu war a jàpp rek mooy. Euh, ki nga xamante ne moo nekkoon le titulaire nekkatu fi donc li fi nekk transition la te comme transition la ni transition di doxe rek lay doxee. décision majeure pour nga jël ko euh, toujours il y a des hésitations c'est difficile loolu xëy na moom moo expliquer peut-être euh, attitude bi parti bi am ak ni parti bi di doxe mais il faut comprendre que quelque part mën nañ jàpp ne ci suuf maanaam ci base bi. am na euh, euh, disons euh, genre dynamique boo xamante ne yëngu-yëngu yoo xamante ne ñoo ngi commencé di jóg te loolu incha allah dina yegg ci ci kaw bopp parti bi su boobaa li nga xamante ne namm nañ ko te du ñu yàgg yàggoon di gis ci PS gën ko xam yàgg yàgg ko xamee PS loolu danañ ca yegg te loolu li nga xamante ne moo ko gën a mën a firndeel mooy suñu renouvellement yi nga xamante dañ ko entamé woon commencé woon nañ ko ba ci digg ba. bon mu taxaw d'une part parce que suñu secrétaire général dëddu na àdduna ñu demaat ba war ko relancer bon mu xawoon a yéex ñu génnoon pour loolu militant yu bëri di ko naqarlu donc euh, bi ñu demee nag ba taxaw temm pour dem ci ci la local yi aussi yegg si mu doon beneen enjeu doon beneen priorité donc renouvellement yi aussi ñu tegaat ko ci suuf ba élection locale yi jàll. bu dee li ma ay leadership dëggantaan yu affirmé wu neewu ci. Mhm. est-ce que vous risquez pas de perdre les grandes villes boo xoolee Dakar daanaka gisuñu ci parti bi ñoo xam ñu ko yóotu. Mhm. Thiès naka noonu. Mhm. tey gunge leen ci. sans lui finalement dama la xam parti socialiste bi fan la teg tànkam foo xamante ni mën nañu ne ah fii jàmm na ko. Euh, yenn responsable yi ñuy tudd sax euh, bu dee ay Alioune Ndoye yooyu. Ah, tey plateau du enjeu boobu noonu. je veux dire par là que ni sax ñi génne woon ci seen wala ñi ngeen dàqee woon seen sax ñoom la ñuy gën a dégg tey ñoom ñoo gën a wane benn perspective moo tax ma ni comme ba kañ transition bi ak ci jafe-jafe ngeen. non non du nanguwuma nanguwuma ne ñu dàqee woon suñu parti lañ gën a dégg. Ah. même su fekkee ne c'est le cas. bon mën nañ xam mën nañ comprendre loolu parce que euh, comme ñoom ñoom ñoo nekk ci position peut-être faiblesse. ñoom ñoo am intérêt yuuxu pour nit ñi dégg leen pour nit ñi xalaat leen a wàllu ji li may wax foofu mooy il faut que ñu xam ne certes parti socialiste ngi fii certes parti socialiste am na autonomie mais parti socialiste dafa nekk ci benn dynamique euh, bu ñu naan la coalition Benno Bokk Yaakaar et je crois que suñuy analyser euh, doxalinu PS ak peut-être taxawaayam mënuñu ko def sans que ñu jël en compte suñu euh, présence boobu suñu participation ci biir Benno Bokk Yaakaar may wax ne rek. globalement euh, analyse bi nga mën a def ci taxawaayu Benno Bokk Yaakaar nous incombe donc concerné nañu mais ci biir Benno Bokk Yaakaar mooy li ma wax rek parce que dañu nekk entre alliés te xëy na nekkul ne fépp la ñu déggoo parce que loolu euh, jënd na sax euh, rapportu parti socialiste ak alliés yi wala wala wala wala rapportu leaderu parti socialiste ak yeneen leaders yi mais da di des réalités parce que élection locale la ñu wax moo tax ñu forcément ne euh, fépp foo xamante ne euh, euh, mën nañ jàpp ne bennoo moo fa nekk rek la bennoo décidé wala la bennoo jàpp noonu la ñuy considérer tous les alliés dès lors que ñun déposé nañ suñu caution ñun am nañu ay responsable yoo xamante ne ñu ni mel ni man dañuy jël initiative déposé doon candidat hmm. donc mën nañ jàpp ne différence yooyu tantôt ñu nekk dans Benno tantôt ñu nekk dans part dans le parti socialiste moo tax mënuñ def une analyse globale liñ mën a wax mooy que ne fépp foo xamante ne Benno lañ fa àndal comme ville de Dakar bon mën nañ def une analyse globale. Hmm. par contre su fekkee ne dañu nekk dem ci gox goxaan yi euh, ak particularité yi ma wax sànq. mën nañ considérer ne réalité locale yi moo tax autant mën nañ analyser taxawaayu Benno autant war nañ mën a analyser aussi taxawaayu.

mais ku ci nekk aussi da am ginnaaw man nekkuma euh, euh, euh, disons une personnalité politique isolée dama nekk un responsable politique taxawal parti socialiste biir jaxaw donc lépp lu ma def action bu ma bu ma bu ma taxawal rek nañu jàpp ne du Mamadou dumba Diouf mooy def wala mooy dox wala mooy doxal mais c'est le leader ou le responsable socialiste mooy le secrétaire général du parti socialiste dans la commune de Diakhao mooy doxal mooy wax. Ah, pour et par le parti socialiste. donc ce qui fait que. mais bien sûr. Ah ce qui fait que waaw ce qui ah, non non moo tax ma ne la on est dans des dañ nekk ci élection locale réalité locale bi moom moo prévaloir parce que su fekkoon na dañu ne benn ñun ñu nangu benn te population yi waxuñu benn mais su ñu demee ba ci bureau de vote yi. Euh, population yi sanctionné euh, bennoo su boobaa xëy na ñun ñëpp danañ ci porter une responsabilité. naka lañ parce que nee naa la c'est des réalités locales. parce que ku ci nekk rek ak sa bilan booy défendre gis nga un maire sortant nee nañ premier mandat nit ñi ñoo lay fal deuxième mandat sa bilan moo lay fal donc je crois que par rapport ak loolu. ñun on est de Jaxaw xam nañ ce que les Jaxaw waa disent xam nañ li Jaxaw waay bëgg aussi. non li ñu wax mooy peut-être xëy na euh, y a beaucoup de manquement dans la gestion équipe municipale bi nga xamante ne moo fi nekk ni ñuy doxalee nekkul loo xamante ne euh, gis nañ ci seen i bopp te yëguñu ne équipe municipale bi faale na leen toppandoo na leen en tout cas lijjante na population yu Jaxaw ci seen majorité ce qui fait que. toute la population aspire à un changement loolooy wax ji maintenant euh, loolu mooy le contexte local maintenant par rapport à cela ñun comme nous sommes des responsables politiques des leaders politiques ku ci nekk da ngay déterminer wu par rapport à cette réalité locale ba ñu demee xëy na biir benn on a pour jéem waxtaan xool ban candidature moo moo gën a pertinente déggoowuñu bon situation bi demee nii parti socialiste dem su sa propre manière man ma nekk le la mairie de Diakhao ànd samay camarades ànd ceeg des de des militants d' autres partis ànd ceeg aussi des personnalités de la société civile mais tout dans Jaxaw. lu mu la coûté. Euh, lu mu ma coûté c' est à dire. Euh, maanaam retombé yi au plan maanaam seen compagnonnage ak ki nga xam te ne moom la xëy na benn désigné au niveau local. non il faut man dama jàpp na y' a pas de coût en tant que tel nous sommes tous ay leaders lañ et ci ay parti lañ bokk. te ku ci nekk xëy na yaa ngi dàkk say intérêt fexe ba sa parti am visibilité sa parti taxaw ci sa biir commune hmm. donc je pense que euh, loolooy wax ci et que comme nag dañu nekk ak euh, suñu ay naataango ci biir coalition benn Bokk Yaakaar générosité boobu amu fa ah oui ah de man mën naa la jox benn firnde rek boo xamante ne peut-être mën na expliquer sax suñu attitude ren mooy en 2014 Euh, au bi waree dem conseil départemental dañu toog ba ñun ñu wooñu nañu pour euh, les investis soixante investis ñu namm pour benn bokk liste benn bokk yaakaar parti socialiste ñett lañ leen ci jox te bi ñu xoolee ñun li ñu pesé xool li ñu représenté au au local élection présidentielle yi 2012 gis nañ ne peut-être même su fekkee ne xëy na euh, le candidat Macky Sall jiit rawoon na le candidat Ousmane Tanor Dieng dans le départemental dans le département Fatick ñoo ngi woon ci rapport un sur deux donc sur cette base là su fekkee ne sur soixante conseillers mais ñu accepter euh, disons la paire jël investir quarante cinq sur la départemental ou en tout cas pour le conseil départemental au moment où ñoom jox ñu trois bi ñu ko waxee ñun dañu rejeter cette proposition là waxtaan ak suñu euh, coordination départementale waxtaan ak direction du parti socialiste ci am Euh, nu mu tuddati ñu permettre ñu ñun ñu déposer une liste PS là où ñu ñoom ñu proposé woon ñu trois investis dont deux à des postes éligibles nous on s'est retrouvé finalement avec neuf conseillers dans le conseil départemental mais loolu suñu fitlu loolu loolu ñu ko woon am et bi ma lay wax nii bi ñuy jox les trois là c'était à soixante douze heures boobu ñetti fan moo pour ñu clôturer donc imagine yow xalaatal un peu coup jarnac yooyu xam nga entre alliés je pense que loolu dafa rafetul donc comme loolu ñun euh, mos nañ ko ci ñoom. Hmm. ñu war a demaat élection déjà ñun bi ñu nekkee sur le terrain gisuñu leen dégguñu leen c'est à dix jours de la du dépôt des listes la ñu doog a manifester wu pour naan ñu Benno fekk na ñun dépassé nañ foofu donc loolu ñu dundoon hmm. tax na ba euh, élection yi ñu jë jigman euh, ñu war jëm ni hmm. ñu bàyyi woon xel ci loolu moo taxoon ñun bañ demee ba xam ne lii mënta sotti ci teel nañ jël suñu décision ne ñun dañuy waxtaan ak ñu mën a waxtaanal euh, dès lors que discussion bi avec benn bokk yaakaar dafa échoué woon parce que xëy na maire bi. est-ce que du ñu avancé taxawaay boobu est-ce du ñoom ñoo ëpp légitimité quand même. pour dire que pour dire que pour dire looloo tax ñu jox as tuut ñoom ñu jël ëpp. non dama bëgg na rek looloo tax ñun ñu euh, jokkook yeneen entité yi nga xam ne ñoo ngi biir jaxaw waxtaan ak ñoom déggook ñoom ñenn ñi ñoo ànd ak ànd ak ñun ñeneen ñi aussi demal seen bopp donc noonu la demee te may leeral ne soo gisee actuellement configuration politique u Jaxaaw euh, y a cinq candidats mais parmi les cinq les trois mais c'est des conseil APR sortants en plus le maire compris mm. keneen ki c'est le parti socialiste beneen bi c'est Yewwi Askan Wi donc man foog naa ne déjà su fekkee ne euh, déjà biir APR rek yooyu un éclatement avec trois candidatures à plus forte raison que ñun ñi nga xamante ne ñun nous sommes des alliés donc loolu rek day wone ne euh, contexte bi xëy na c'était pas favorable pour que ñun ñu mën a cautionner une candidature de Benno comme sax hmm. te xëy na li xew jaxaw loolu moo xew ci yeneen gox goxaan te peut-être moom moo indi ba yenn parti dem ci yeneen bannière et que suñu responsable socialiste yi dem ci suñuy couleur couleur PS mais dañ ciy sentir frustration da ngeen a wane ni daal seen allié yi rawatina waa APR dañoo wane foqale comme yi nga koy waxee coup de jarnac yaa ngi wax ni amuñu générosité euh, dañoo wane daal lépp ñoom la post yëpp noonu la. Mhm. dafa mel ni euh, sentiment boobu ngeen di waxee. mais loolu du lu bees ah oui. lu bees ba ci anam gi président sax di joxe post yeeg. non non loolu xëy na. loolu du du xam nga lu mel ni bu. xam nga non dama la ne local yi waaw. dama la ne la réalité nationale. Hmm. xëy na les plénipotentiaires de benn Bokk Yaakaar mooy leader politique yi nga xamante ne. ñoom ñoo nànk parti yi nekk ci biir Benno ak président de la république déggoo nañ juboo nañ ànd nañ donc ñoo bokk yoon bi kooku kenn naatablitu ko kenn warantewu ko mais à la mais président Macky Sall mënul seede ne euh, forcément responsable am bi nekk à la base moom ni muy gérer suñuy leader ni muy le les plénipotentiaires yi nekk biir Benno Bokk Yaakaar représente seen i seen i parti mais à la base ñi ko fa toogal noonu la ñuy gérer seen naataango yu jóge ci yeneen parti looloo amul nag te comme loolu amul ñuy xeeb di ñu soofantal mais attends su boobaa ñun aussi fulaak fayda la am dañuy jël suñu responsabilité assumer ko xamal ne leen nag ñoom ni ñu nekk ay responsable politique ñu noonu lañ nekk ay responsable noonu li ñu mën a demee tàllal seen seen loxo euh, tàllal ko population yi pour ñu jàppale leen woote la ñun noonu lañ ko mënee parce que ñoom lañ nekk ay doomu dëkk bi ñun noonu lañ nekk ay doomu dëkk bi hmm. donc loolu en fait moom moo waral situation boobu. mais ni nga koy ni nga koy déggee nii mooy nii <laughs> Benno moom après les locales boobu moytul au regard des résultats yi feeñ ci éclatement la jëm. mais 2014 situation bi moo amoon Benno éclaté wul te ma ne Benno mooy mooy coalition bi gën a yàgg ci coalition yi Sénégal moo sa am donc euh, moi je pense pa que mu mën a am impact de quelque nature que ce soit dès lors que au Euh, leader politique yi ñoo ngi déggoo ñoo ngi jokkoo ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi juboo mais à la base réalité boobu amul en tout cas du fépp bopp donc il faut que ñun ñu mën a séparer réalité bi nga xam ne moom la ñuy dund ci base bi mooy ci gox goxaan yi te loolu ñun rek ko xam ak réalité bi nga xamante ne moom la leader yi di dund ci kaw maanaam. ci direction Benno Bokk Yaakaar ak direction parti politique yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk Benno Bokk Yaakaar. c'est différent. d'accord au-delà élection locale yi ñu jëm ci ñu te demaguñ fa. Hmm. Euh, perspective yi li gis wax naa ko léegi candidat yi ñu ngi wane seen bopp ba mu des parti socialiste ba léegi mu ngi ci di déglu waa ji ne du ne waaw du ne déet. Hmm. ci jamono yooyu Khalifa na waaw moom day bokk. on a vu Sonko mu ngi affirmé yeneen leader jeunes yi seen bopp di signalé wu même ay euh, la différence xam nga mooy lan ñooñ ñi nga tudd ñëpp ay opposants lañ ñun dañu ànd ak pouvoir bi nekk ak pouvoir bi di doxal ak pouvoir bi xam nga partager le bilan euh, disons du régime du président Macky Sall loolu dootu lu ñu naatable kon bokk euh, opposants yi li ñuy doxalee. ak euh, déjà ñoom taxawaay bi ñu am pour perspective électorale yi di ñëw ñun mënuñu am position boobu. parce que mooy ni parti socialiste moom du am candidat en déedéet waxuñu loolu non on n'a jamais dit ça waxuñu loolu waxuñu loolu dama ne yeggaguñ fa actuellement ñun parti socialiste li ñu tàmm di wax mooy soxla du am rakk ci kaw soxla du am rakk boobu ñun dañu euh, jëmmal local yi élection locale yi. donc loolu mu doon kaa boo xam ne dañ ko war a lijjante ba pare suñ ko lijjantee ba pare la ca législative la ca présidentielle mais dinañ ca taxaw la nga xamante ne moom moo war a doon taxawaay bañ ca war bañ ca war a am aussi danañ ko waxtaanee suñu biir ay instance mais suñu paree aussi Sénégal yi dañ ko yëg nañ xam ñun danañ ci nam comme l'impression que nañu pouvoir en place Benno Bokk Yaakaar ci anam gi ñuy drainer fuul yi ci bu ñu leen wooyee barki démboo jaay gis nga manifestation jëm ci justice bi mu ne jàng hmm. boo ko boolee taxawaay bi Ousmane ko am ba barki démboo jaay barki li mu jaar ci bi ñu koy woo li ñuy gën a sentir en tout cas ci gis-gis ñu bëri mooy ne opposition bi ñoo gën a formel ci taxawaay wane yoon fii deux mille vingt deux bi buñ ci génnee euh, législative yi ba ci deux mille vingt quatre vraiment ci taxawaay euh, foog naa ne Pape euh, Ousmane euh, xëy na sa gis-gis ak sama gis-gis suñoo waru mais li ma gis ci opposition bi déjà ñoom ils sont dans leur rôle opposition su noppee foog naa ne foofu opposition amatu fa mais même malgré li ñuy wax yoo xam nga ne opposition bi mënatul mobiliser gis nañ li ñu dajale keroog place de l'Obélisque et vraiment kooku c'était c'était c'était lamentable vraiment donc opposition boobu xam nañ ne population yi déjà dañ leen weddi ci kaw lan ci kaw scandale en répétition yi nga xamante ne ku ci nekk ci ñoom def na fi lu ne weñ mais population yi dofuñu mais loolu gis nañ ko xam nañ aussi que ne euh, xëy na ñii peut-être euh, confiance lu ñu war a am ci ab leader mais confiance boobu xëy na am na luñ ci manqué le mm. donc ce qui fait que ne ñoom mënatuñu drainer les foules loolu waxatuñ ko euh, l'autre chose mooy muy ñi nga ñi nga tudd ñoo ñëpp ay ñoom Ousmane Sonko ak et consort euh, foog naa ne euh, actuellement ñoom amatuñ beneen métier lu dul s'opposer kuy opposé wu nag foog nga wut ay argument donc euh, te foog naa ne ñoom fi mu toll nii tal nañ leneen parce que ku ci nekk su fekkee ne ku ci nekk yaa ngeeg euh, ay démêlés avec la justice yoo xamante ne euh, moo tax pratiquement talatoo sax sa bopp wax waxatuma ah, say militant ku ci nekk ci ñoom ma ne la ma ne la ma ne ma ne la fii du dara luñ fi classé sans suite man du ma revenir raat naan damay wax ci euh, nu mu tuddati un dossier boo xam c'est en en cours en justice loolu duma ci wax mais li wóor te leer mooy yow xam nga ne sénégalais tel leader bi fi bu fi def lu ne wan lu ne weñ yow xam nga li ci population yi xalaat en majorité doonatul loo xam dañ koy naatable li ñuy wax mooy est que yegg nañ ca wala yegguñ ca mais xam nga ne actuellement population yi nekkatuñ ndax est-ce que def na wala deful est-ce que ñoom ñoo def wala defuñu fi mu toll nii li ñu jàpp mooy na justice daf yoon na na na na yoon euh, def liggéeyam et li nga xamante ne moom la ñëpp di xaar mooy que le droit soit dit que ñu yegg fa. mais ba ci scandale yu moo xam ñu koy dégg trésor ñu koy dégg poste ñu koy dégg saar yooyu aussi. mais saar loo ci dégg dégg naa bari ki dem que i ki déggal euh, poste plutôt IGE def na fa descente. mais attends l' administration fonctionne hein kooku waxatuñ ko la justice fonctionne. donc euh, nañ jàpp ne muy opposition du pouvoir képp ku ci def loo xamante ne naka su dul noonu la mais attends la justice dina doxal yoonam. dina doxal yoonam. yéene bi mooy euh, déjà maa ngi tàllal loxo aux de jaxaw pour ñu fal ma comme maire parce que nag euh, foog naa ne euh, dund naa ko ak ñoom dox naa ko ak ñoom ba dara doonul dara li nga xamante ne war na n'importe quel leader local daan nañ ci taxaw maanaam le social taxawu nit ñi à matière de santé mënuma la wax ñaata yoon laa jàppale ay nit ci wàllu ay prise en charge sanitaire ñu am ñu war a opérer ñu feebar ñu war leen a faj ma yëg ko euh, dox ci ay jéego def suma kem kattan ba ñooñu ñu faj leen ñu delluwaat biir jaxaw di dox seen i soxla loolu benn la euh, beneen secteur bi nga xam dafa sooxe muy wàllum euh, ndaw ñi li nga xamante ne mën nañ ko ñoo ngi koy jéem ci wàllu accompagner xale yi mooy ak mooy ci wàllum bourse yi am na yoo xamante ne jot nañ ko ci def donc loolu tiitarawuñ ko parce que suñu ay rakk lañ koy defal c'est tout à fait normal mais euh, loo xamante ne ñi ko dundal xam nañ beneen wàll bi mooy wàllum sport bi sport bi dafa sooxe parce que su ma la nee jaxaaw pratiquement euh, li ñu naan coupe du maire li ñu naan les finales zonales des fois mën nañ toog une ne boo xamante ne balaa ñu ko def euh, dinañ wër parrain ba sonn pourquoi parce que l'autorité municipale taxawaay ba mu waroon am encadrement bi nga xamante ne waroon na ko ak euh, ces ASC là ak la zone taxu defu ko euh, ma boole ci nag le fait que subvention yi nga xamante ne moom la ñu war a jox euh, disons les a et autres la depuis combien d' années joxe wuñ ko wala suñ ko joxee ren balaa ñu kaa joxati yàllaa xam donc loolu yëpp nekk ay taar yoo xamante ne ay gàkk yoo gàkk-gàkk yoo xamante ne ñun dañu gëm ne loolu dañ ko war a effacer kon nag ñun déjà fekkoon na ci ciy yëngatu donc le fait que ñun Euh, ñu fal ñu maire dina permettre loolu ñu gën ko mën a jël à bras le corps l'autre chose mooy li ma tàmm di wax mooy euh, jaxaw amul euh, potentialité yu bari xam nga comme ni ma koy waxee aussi jaxaw amul pétrole amul gaz mais jaxaw am na un patrimoine culturel et historique extraordinaire ku ne jaxaw Sine xam ne c'est la capitale de l'ancien royaume du Sine soo fa demee vestige yaa nga fa mais culturellement parlé parlant mais loolu dañ ko war a mën a monétiser en quoi faisant nañu fexe ba coopération décentralisée yi nga xamante ne moom la euh, kii code des collectivités locales acte 2 acte 3 de la décentralisation consacré que loolu ñu jox ko son sens surtout que ne jaxaaw dafa am une diaspora locale euh, très diversifiée que ñu fexe impliquer diaspora boobu pour que ñu mën a permettre yombalal ñu ay partenariat avec de collectivité ak ay institutions yoo xamante dañ nekk bitim réew su boobaa ñooñu ci biir partenariat boobu mën nañu indi ay projet pour ndaw ñi pour jigéen ñi mën na tax euh, xale yi nga xamante ne bari fa trop car macha allah diplômé université am fa seen i master ñibbi si toog croiser les bras te kenn jàppalewu leen kenn gungewu leen je crois que loolu ça peut être une solution pour catégorie boobu ñeneen ñi nga xamante ne aussi amuñu diplôme. mais dañ leen war a accompagner assister leen te déjà projet yooyu may wax à travers partenariat boobu mën nañ fa jëlee lu bari parce que gis nañ fi nag yenn communes yi mel ni Diofior pratiquement euh, chaque années ñoom ñu recevoir des partenaires yoo xamante ne bitim réew lu ñuy jógee euh, ñoom dem ay délégation yoo xam dañuy jógee euh, Diofior dem bitim réew voilà te c'est un partenariat dynamique ñu am ci ay projets yu bëri am ci ay investissement yu bëri mais loolu dama ne dëkk bu mel ni Jaxaaw nga xam ne turam foo ko tudd biir Sénégal kenn naataabeetu ko mu bokk ci histoire Sénégal kooku c'est un boo xam ne dañ ko war a jaay et que mu indil dara euh, disons dëkk bi en terme d'investissement en terme de projet et en terme de financement donc loolu euh, mën naa jàpp ne bokk na ci li nga xam ne moom moo tënk suñu programme côté volet volet éducation bi aussi mun ñu ko fàtte parce que euh, foog naa ne li ñu war a jàpp mooy fexe ba tàggat xale yi que demain ñu toog ba fu ñu tuddatee euh, des écoles d'excellence école jaxaw yi bokk ci lycée jaxaaw bi bokk ci mais surtout ñu am ay xale yoo xamante dañuy dem concours général pourquoi parce que xëy na encadrement bi ñu soxla mairie bi danañ accompagner jàppale leen fexe aussi associé ñi nga xamante ne ñoom ñooy asso ay enseignants dëkk ci biir dëkk bi ñu xool ñu leen di organiser pour que ñoom ñu mën a participer ci ci effort de guerre boobu pour que suñu ndaw yi Euh, maanaam seen njàng gën a màcc ñu bokk ci ñi nga xamante nañ leen di cité comme exemple ci biir Sénégal lool lu war a mën a nekk la jigéen ñi aussi mënuma leen fàtte parce que man euh, ci li ma jàng ci wàllum économie de développement étude yëpp dañu won a ne su fekkee ne da nga fekk ab njaboot nga bëgg leen génnee ci ndóol li gën a wóor mooy nga jël ku jigéen ka euh, jàppale ko financer ko mu am projet Euh, entreprendre su demee ba euh, loolu dox lépp lu mu ci jëlee dafa wóor ne da koy indiwaat ci biir famille bi xale yi nga xam dañ doon xëy te amuñu ndékki di xëyat biiru neen ñooñu seeni yaay yooyu nga xam ne euh, bénéfice ñuy jëlee ci seen activité boobu ce qui est sûr et certain priorité bi mooy xale bi xale bi dina lekk xale bi dina dañ ko wodd maanaam dina solu xale bi dina am ay fourniture am xale bi dina mën a jàngi pour que ëllëg mu mën a tekki donc moo tax ma ne jigéen ñi ñun mënuñ leen bàyyi ginnaaw au contraire ñoom ñoo nekk au centre de nos préoccupations en matière de développement dinañ fexe ba ñu former leen parce que nit nit ki soo ko financé te amul formation jëriñul dara dinañ leen former d'abord ensuite maintenant ñu fexe à travers la microfinance déjà au niveau de Jaxaw quartier boo gis am na jigéen ñu dañu regroupé wu ci euh, ay mbootaay naan ay avec di def ay genre tontine yoo xamante ne euh, vraiment da leen di permettre ñu mën a lijjante seen i soxla ci wàllum feetum tabaski feetum korité ak yeneen ak yeneen donc ñooñu soo ñëwee gën a dooleel loolu permettre leen ñoom ñoom déjà ay këyit c'est important former leen ñu xam naka la naka la ñuy gérer un projet maintenant nag nga indi leen un financement te financement bi c'est pas compliqué ab couverture nga leen di utal rek soo ñu utalee couverture maanaam euh, une caution ce qui est sûr et certain ku soxla te xaalis nga dem dans une banque wala dans une mutuelle duñ la laaj garantie sa kayitu kër walla leneen parce que couverture bi dina fi nekk pour mën a permettre leen ñoom ñu am un crédit mën a jot ay koppar dem investir wala dem def seen projet pour que loolu yëpp ñu mën ko delloo si ci biir kër gi donc euh, troisième âge bi aussi comme xam nañ ne euh, troisième âge bi dañu vulnérable feebar yi ci lañ commencé feeñ euh, maladie chronique yu bëri euh, c'est après la retraite lay apparaître même su fekkee ne mairie bi ci wàllum ay kopparam mënu ko permettre mu jël en charge euh, dison ñëpp mooy troisième âge mooy mag ñi mais mën nañ quand organiser leen déjà à travers un bureau de conseil et d'encadrement et d'accompagnement social bureau boobu moom mooy mën a recenser troisième âge yi nga xam ne yëpp dañu tawat wala xëy na seen yaram neexul Euh, surtout ñi nga xam dañu am ay maladie chronique euh, ñu leen di accompagner am mu ñu fexe ba am une boo xam dina leen permettre muy wàññi les dépenses sanitaires au-delà de ça ñi nga xamante ne peut-être euh, ils sont éligibles disons au plan Sésame parce que am na ñoo xam ne xëy na mën nañ ci éligible te mën ko bañ a xam mais ñu encadré leen ba information bi ci war yëpp ñoom ñu jot ko donc loolu yëpp dina participer wàññi les coûts en termes de prise en charge sanitaire te en réalité prise en charge boobu ñen ñoo koy jël mooy seen doom yi nga xamante ne soit ay fonctionnaire lañ wala ñi nga xam dañuy taaba taaba hmm. suñu demee ba loolu wàcc leen loolu day doon genre bénéfice boo xamante ne day res ci ñoom dina tax ñu gën a ñoŋal dundinu euh, askan bi dina tax ñu gën a ñoŋal nu euh, njaboot bi ci biir kër gi donc je pense que loolu yëpp c'est un tout et que euh, en tout cas ñun gis-gis bu leer nañu lañ ci am hmm. te noonu la ñu demee chaque week-end ko jaxawaay ñu comprendre ko noonu donc ci kaw loolu daal ñun dañu jàpp ne suñu falee incha allah donc euh, loolu nekk na suñu euh, priorité dañ ko doxal pour intérêt wu jaxaw ak intérêt wu jaxawaay fi may daaneele mooy que ne wax naa ci lépp ba mu des ndox courant euh, ak yu ni mel parce que mooy li ñu naan les service sociaux de base loolu en tant que maire kenn waru ko def ba pare di ko ndamoo parce que da di loo xamante ne fépp fu ab bakkan di yi ndox war na fa am courant war na fa am saa ku ko war a ku ko def def nga li la war ku ko def ku ko deful aussi euh, bañ nga def li la war donc loolu da di loo xamante ne ñun duñ ci wax sax parce que c'est une évidence et bien entendu c'est la mère des priorités moom la ñuy jiital mais duñ ko tiitaroo duñ ko dugal suñu bilan mooy dinañ fexe fépp fu amul courant dina am courant fépp fu amoon éclairage public dina fam dina am éclairage public fépp aussi foo xamante ne xëy na adduction d'eau manqué na fa wala ndox amagu fa wala yeggagu fa dinañ fexe loolu ñu def ko en priorité mu yegg fa donc pour dire que vraiment ñun du benn pàcc la ñu bàyyi ci neuf domaines de compétence yi ak même peut-être aller au-delà mais surtout avec euh, l'appui du partenariat bi nga xam ne yaakaare nañ ko avec la coopération décentralisée ñu war a dem bitim réew uti ay partenaires ñu ñëw jàppale ñu maa ngi di gërëm di leen sant di remercier euh, téléspectateur u Equivox TV ñuy déglu di ñu seetaan et di am mbégte bu baax di tàllal encore une fois loxo suma euh, population wu jaxaw yi nga xamante ne vraiment ñoo ngi xaar ci ñoom euh, li nga xamante ne ñun moom lañ teg comme programme que loolu convaincre leen ba ñu jàppale ñu fal ñu ci kaw intérêt jaxaw ak intérêt wu population wu jaxaw jërëjëf merci